تبذار في الحسنات سيدات لمحسنات مريم فوخت مخينات عند الذي لم يدرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa xabibina wa qudwatina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaan mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ñaan subhaanahu wa taala mu dolli ci réew mi jàmm dolli fi xéewal waaye tam musal ñu ci bépp musiba ak balaa ci anam gum mën a doon di beral nuyoo wala boog di jiital ci nuyo bi ak ci ziyaar bi niñ ko baaxoo def Maulana Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke di suñu kilifa suñu soppe suñu lépp di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla yokku guddal aw fanam wéeral ay cëram ba yéene ak naal yi nga xam ne nii am na ko ngir euh, liggéey ci toolub lislaam bi waaye tam ci yoonu maam bi yàlla may ko mu àggale ko ci sagoom te ñu fekk lépp di nuyu ak ziar bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo ñuy topp fii ci seen télévision GMT TV di chaîne bi nga xam ne nii mooy chaîne euh, jumaay Tuubaa ju mag ji te daairatu muqaddamatul xidma di ko saytu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom di leen ziar tey rafetlu seenu liggéey Euh, rawatina mbokk mi nga xam ne ni mooy saytu wàllu émission yi am solo yi nga xam ne moom lañ fi def mooy Cheikh Abdoul Qadir Bousso euh, xanaa ñu ñëwaat ak yéen ngir continé euh, mbir mi nga xam ne ni tàmbale woon nañ ko ak yéen te mooy émission yi nga xam ne ni moom la ñuy faral di amal fanweeri fan bu jot ci weer wu ne di fàttalante ak yéen ci soxnaay murit yi nga xam ne nii ñoo jamonoon tele woon Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu maanaam soxna yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci ay keppaaram doonoon ay soxna yu sell yoo xam ne nii waxtaane ci seenu dund doonul lu dul euh, yokkute ci bépp jullit rawatina bépp jigéenu jullit lu ma wax sax jigéenu murit waaye jigéenu jullit bu nekk mën naa roy ci ñoom ñun bu ñuy jàng ak a fàttalante siira mag ñu baax ñi loolu rek lañ ci jublu bu ngeen fàttalikoo suñu jotaay bu njëkk dañ koo tàmbale woon ca cosaan la te mooy jigéen ñi nekkoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko yàlla di waxee waatul buyuuta min abwaabiha booy dugg ci kër da nga koy jaare ca buntu ba mënuñoo waxtaane ci yoonu murit lu dul ne waxtaan dañuy njëkk a waxtaane ci lislaam ndax yoonu murit du lu bees dafa sëñ Tuubaa dafa ñëw ngir yeesal lislaam andiwu fi lu bees kon nag dañuy tàmbalee ca cosaan la ñëw ci li nga xam ne mooy bànqaas bi kon nag bu ñu waxtaanee soxna yoonu murit dañuy tàmbale ca soxna ya nga xam ne nii ñoo àndoona yonent bi salaam alayhi wa sallam ba lislaam sosoo kon épisode bu njëkk bi waxtaanoon nañ ci soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seenu jiitu ci lislaam seen njëkk a joxe seen deret ci lislaam seen taxawaayu am solo yooyu euh, waxtaanoon nañ ci waaye tam ci suñu <coughs> jotaayum ñaareel bi dugg nañ lu gën a jege donte duggaguñu woon ci biir a ndax ñi ngi doon waxtaana ci soxna astawaalo Mbàkke radiallahu anha moom mi nga xam ne nii bokk na comme ni muñ ko waxee woon ci ñaareelu émission bi euh, ci soxna yu am solo yi nga xam ne ni daanaka seenub liggéey bu kawee bokk na ci li lay taa yoonu murit te moom mooy waajuru soxna jaaratullahi Buso mi nga xam ne moom moo mooy waajuru Serigne Serigne Touba radiallahu anhu kon suñ jataayub tey soxna jaaro moomu nga xam ne ni moom mooy doom ci soxna astawaalo miñ mujjee waxtaane moom la waxtaane waxtaane nga xam ne mooy waajuru jigéenu Serigne Touba balaa ñoo dugg ci nag ñeneen ñi nga xam ne nii moom ñooy ay waa këram ak ay doomam ñu toppeeku ko noonu kon soxna Jaara Buso yaakaar naa xamle ko moom du jafe ndax euh, fu ñu tuddee jigéenu jullit ci Sénégal fu ñu tuddee royukaay jigéen ñi ci Sénégal xel yëpp ne yar ci soxna jaaratullahi Mariama Bousso kon moom ci euh, tënk bu gàtt buñ ko bëggoon a xamle moom mooy kan moom mooy Mariama Bousso kon Mariam moom mooy aw turam euh, nit mën na maa laaj lu tax kon ñu naan soxna jaaratullahi wala soxna jaara moom la gën a siiwee loolu aw dàkkantal la dàkkantal ci araab buñ ko waxee mooy loo xam ne nii dañ koy taggee nit wala ñu koy ŋàññee nit jaaratullahi dañ ko koo muy tekki dëkkandoob yàlla subhaanahu wa taala ndax euh, bëgg gum bëggoon yàlla suñ borom jege gum ko jege woon ni mu ko doon jaamoo fu mu toll suba ngoon guddeeg bëccëg ba tax ñu dàkkantale ko dëkkandoob yàlla kon loolu moo indi jaaratullaahi kon moom waajuram bu jigéen comme niñ ko junjee sànq mooy soxna Sawaalo soxna Sawaalo mi nga xam ne nii euh, mi ngi ju bàyyi gane woon àdduna Jolof moom ku bëgg topp xam naa moom maanaam ak càllaleem ak ku jiitu na ci émission bi passé jaruñu ci guddal bu dee waajuram bu jigéen mooy Serigne Ahmadou Bousso te gënoon a siwee Serigne Ma Bousso wala Serigne Mo Bousso Awa Mbaye moom Serigne Matabara Bousso moom Serigne Hamad Ali Hamad Ali tamit euh, histoire am nettali woon nañ ko bi ñuy waxtaan ci soxna sawalo te ñoom ñooñu boo toppee ci seen càllale gi mi ngi nii ma tim dina dem a dem ba ci Seydina Al Hassan Ibnu Ali radiallahu anhu nga xam ne daanaka borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne eh, ay surafaaw lañ <coughs> kon kooku moom mooy eh, wàllu askanam moom soxna jaara bu so eh, soxna jaara mi ngi ganee àdduna ci waajur wu jigéen wu yéeme te mooy soxna sawaalo mi ñu doon waxtaanee nekkoon borom xam-xam bu mag a mag a mag nekkoon jaamukatu yàlla nekkoon yarkat koo xam ne dafa amoon ay daara waxoon nañ ko ci émission boobu soxna jaara daanaka dundam gépp nga xam ne mi ngi jolof jugee fa dem saalum dem ay dëkk yu baree bari waaye fu mu dem rek la muy njëkk def rek mooy sos daara kon ci daara jooju nga xam ne ci keppaar gu nga xam ne mooy keppaaru soxna astawaalo nga xam ne lépp xam la woon lépp alquran la woon soxna jaara foofu la eh, ganee àdduna nga xam ne waajuram mu jigéen moom moo ko jàngal alquran moom soxna astawaalo ba mu mokkal ko mu jàngal ko xam-xam euh, mu màgg ci keppaaru soxna astawaalo moom nga xam ne nii euh, jamono yëpp àddunaam yëpp jàngale woon ak jàngale jaamu yàlla kon nag du du doon lu yéeme bu ñu gisee soxna jaara tamit euh, melo yi nga xam ne nii moom moom la nàmpe ci waajuram bu jigéen mu feeñ lool lool ci moom Euh, dañuy wax ne euh, soxna Jaara Buso euh, maanaam ci wàllu askanam sëriñ ma sàmba mariam Diop mi ngi wax ci ci loolu naan asilatun watanan sharifatun nasaban karimatun xasaban tafdiluha baana maanaam moom ku cosaanu la waaye ku tedd la ci askanam waaye ku ku sell la ku tedd la ci wàll yëpp ndax aw askanam ci wàllu waajuram bu góor wax nañ ko day dem ba ci sëtub yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye bu waajuram mu jigéen soxna as sawaalo euh, moom doom mi soxna ahmadu sëriñ ahmadu soxna buso la sëriñ ahmadu buso doomi maam maaram la comme niñ ko euh, leeralee woon te comme niñ ko waxee woon maam maaram daanaka euh, maanaam njabootu wala askani diine yi nekk ci Sénégal gi yëpp daanaka ñu ci bari ci moom lañ soqi te li ko waraloon leeraloon nañ ko ndax dafa Euh, nekkoon yoroon ay daara yu baree bare daanaka ñu mu jàngal ba yar leen bañ màgg rek da leen may kenn ci njabootam moo tax daanaka macha allah ñoom ñëpp ci moom lañ soqi ko soxna jaara Buso mi ngi ganee àdduna ci euh, dëkk bu ñu wax Mbusoobe Jolof waaye ay waajuram ñi ngi jugee Fuuta Tooro ci dëkk bu ñu wax Gollare mi ngi ganee àdduna atum 1833 di ci milaadi ya tombeek Euh, mille deux cent quarante neuf wala mille deux cent cinquante ci hijriya am na ñu ne ci Mbàkke ba wala gane àdduna am na ñu wax loolu euh, mu yaru màgg ci keppaaru waajuram mu jigéen woowu nga xam ne ni euh, moom moo ko teete ci alquran waaye ci xam ju baree bari wax nañ ne ginnaaw bi mu mokkalee alquran moom soxna jaaratullahi bu so alquran ji yëpp tafsir na ko maanaam firul firulu na ko ci uh, nijaayam jooj ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe tafsir Mbàkke Ndumbe nijaayu soxna jaar la ndax moom ak soxna Astawaalo ñoo bokk lépp waaye tam uh, ginnaaw bi nga xamee ne jàng na ci nijaayam jooju xam-xamu tafsir te mooy firi alquran ndax alquran boo ko mokkalee ba pare baax na nga xam la mi tekki ndax dafa mel ne ab leetar la bu jugee ci suñu borom subhaanahu nit ki ko jox leetar pour nga jëriñoo la ca biir faaw nga liir ko te boo ko liiree te comprendre wala xamoo lañ cee wax xëy na na nga caa war a jëriñoo dëgg-dëgg euh, day manqué loolu moo tax tafsir am solo waaye ginnaaw bi mu paree ci tafsir tamit jàng na ci nijaayam jooju xam-xam yu bare xam-xami diine ji lu ci mel ne fiqh lu ci mel ne xadis lu ci mel ne siira euh, jàng na lu baree bare ci xam-xam yooyu loolu moo tax ba tey tafsir euh, euh, sëñ Masamba Mariam Diop mi ngi waxaat foofu naan amma abuha axuha xaaluha fahumu xeerul machaayixi axlaaqan wa adyaana moom soxna jaarar bu sodee waajuram ak mbokkam ak nijaayam ñoom de bokkoon nañ ci ñi gën ci sëriñ sa ci kilifa ya ci wàllu diine ak wàllu euh, jikko waaw waajuram mooy sëriñ Mabuso mi ñu wax léegi mbokkam mooy Serigne bu soobe di nijaay Serigne Touba nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci xam-xam ba ne moo njëkk a dalal sëñ bi xaalu xaaluha nijaayam mooy ki ñu wax léegi te mooy tafsir Mbàkke Ndumbe moom tamit nga xam ne bokk na ci borom xam-xam yu mag yi nga xam ne moo nekkoon ñoo nekkoon ci jamono jooja <laughs> euh, naka noonu tamit jàng na xam bu bare xam-xam yu bari ci tawxiid fiq tasawuf ak euh, xam-xam yeneen yi nga xam ne nii julit bi da koy soxla li ñuy déggee foofu rek te junjoon nañ ko ci émission yi yay jiitu mooy maanaam soxna yooye yitte ju kawe ji ñu amee amoon ci wàllu sàkku xam-xam ni ñu wuteeg jamonoy léegi yi nga xam ne nii jigéen ñi dañoo deltu ginnaaw maanaam yaafuus ci wàllu sàkku xam-xam jàpp nañ ne moom loolu moom daanaka moom amul solo ci ñoom ndax xëy na li tax ñu gëm koot liñ daan dégg njàngum jigéen amul solo waaye bu fekkee bëgg nañ référence bëgg nañ royuwaay tax xool ci soxna yi dinañ xam ne loolu ñoom maanaam dafa wuteeg li nga xam ne ni moom la soxna yu baaxee njëkk doon xante woo waaw ah, ndax kenn daawu ci dem kër lu dul ne da nga dangaa mokkal alquran waaye itam dangaa jàng sax xam-xamu diine la nga war a xam lépp ba sax sox sos ay daara yor ay daara di jàngale ak yare ba xam-xam bi di gën a tasaaroo te musuñoo wax ne loolu amul solo ci jigéen bañ koy féetale ginnaaw kon moom wax nañ ne daanaka bi mu am ñaar fukki at ak juróom-ñeent fekk na daanaka fekk na mokkal na alxuraan bu yàgg ba xam-xami diine yi nga xam ne ni moom la julit bi war a xam yu ci bëree bari mu jàng ko waaye itam euh, téere yi nga xam ne bokk na téere luxaat comme ay maqaamaatul xariiri euh, ibnul mahib yu demee noonu euh, nga xam ne ginnaaw boobu daanaka mujj na ni yaayam soxna Sawaalo nekkee jàngalekat mujj na moom itam mel ne formé na ko ba daanaka lu yaayam mën a taxawee yëpp mu mujj moom itam di ko di ko taxawee. wax nañ ne bi nga xamee ne toll na ci dem kër e Serigne Mamour Anta Sali radiyallahu anhu e, ñëwoon ci moom ginnaaw comme ni ko niñ ko baaxoo defee rek ci aada yi nga xam ne moom la ñuy faral di def bu soxna di dem kër borom këram biñ ko dénkee liñ koy dénk ba pare dañoo wax dafa jël kaamil bi daal koy ubbi. bi mu ko ubbee daal di yem ci bi yàlla naan maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyin te mooy fi yàlla di waxee ne muhammad doonul bàyyi kenn ci yéen waaye moom ndawul yàlla la te moom moo mujj ci ne aaya bi de moo tere ma ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala mu ma maanaam ne ne dinaa kon dinaa jaayante ne dinaa fi liggéey loo xam ne ni yàlla dina ma wërsëgalal ab yonent waaye nag gannaaw ab yonent amatul yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la mujjee dinaa góorgóoru dinaa liggéey ba dinaa am yàlla dina ma wërsëgal euh, njaboot gu barke goo xam ne nii ñëpp dinañ jëriñu ci njariñam kon loolu moom moom moo ko jaayante woon moom soxna jaara Buso te loolu luñ ciy déggee rek mooy himma aale mooy xam maanaam yitte ju kawe ji nga xam ne ni moom la amoon ak yéene ju sell ji nga xam ne ni moom la amoon yàlla dogal gis nga lim ko fayee malgré dundam gu gàtt ci zahir ndax fanweer at ak ñett rek la dund waaye dund gaa barke te liñ naan barke moo ëpp moo gën bari la kon loolu moo aju ci bi muy bi muy dem kër yi demee ñu tuxu ci tomb bi nga xamee ne bokk na ci tomb yu gën a am solo bu ñuy waxtaane ci mag ñi euh, te mooy ay jikkoom lenn ci ay jikkooy soxna jaara buso ngir ñu mën ko cee roy bokk na ci ay jikkoom jaamu yàlla référence la woon ci jaamu yàlla ak wàllu li ñu tuddee maanaam uuf ak njaboot jaamu yàlla dafa nekk loo xam ne nii moom mooy base lépp kuñ ne nit ku baax la la ñuy njëkk a xool ci moom mooy ak jaamu yàlla muy góor muy jigéen ndax jaamu yàlla ñëpp la war wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yutaimuun yàlla daal nee na binduma nit lu dul ak jinne lu dul ñu jaamu ma bëgguma ci ñoom dara bëgguma soxlawuma ci ñoom dara ndax yàlla suñu boro moom mooy wërsëgale kon soxna jaara dafa déggoon bu baax a baax aaya bi yàlla di wax te doon ko wax Euh, jëmale ko ci soxna yonte bi sallallahu alayhi wa sallam naan wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa taamal salihan nutiha ajraha marratain képp koo xam ne nii mi ngi jaamu yàlla ci yéen soxna yi te dëgg la bi ci soxna yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la wàcc woon waaye nag ñëpp a ci yem ndax euh, alquran moom euh, ñëpp lay waxal maanaam xeetu yonte bi sallallahu ñëpp lay waxal mu ne képp koo xam ne mi ngi jaamu yàlla ci yéen tey def lu rafet di def jëf ju baax nee dinañ leen jox seeni euh, yool ñaari yoon te dinañ leen waajal wërsëg wu kawe kawe wu tedd kon loolu moom la doon jëfe moom soxna Jaara Buso moo taxoon ku jàmbaara la woon ci wàllu jaamu yàlla waaye ku bëri woon la lu muy saraxe ak lu muy julli julli buñ ko waxee nag mooy julli naafila yi ndax julli farata moom xamees na ko farata la juróomi juróomi julli waaye ku jàmbaaroon la ci julli naafi rawatina li ñu tuddee qiyaamul layl te mooy di yeewu euh, di julli ci guddi gi daf ko daan def ndeysaan ba ñi nekkoon ñi ko wëroon sax dañ ko doon ñeewantal di ko yërëm naan ko yow moom ndax jaamu yàlla lu mu bëri woon lu muy yàlla ak néew gum néewi woon ay nelaw ñu naan ko waaye yow xanaa doo noppalu mu ne leen man de ñaari aaya ci alquran moo moo tee bu nelaw guddi gépp te benn ba mooy fi yàlla naan wa min alleyli fa tahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda fi yàlla naan guddi gi na nga jug julli di jaamu yàlla ndax kat mën na am yàlla may la ay maqaama yu kawe waaye beneen aaya bi mooy fi yàlla di wax naan kaanu qalilan min alleyli maa yahjaun wa bil ashaari hum yastaghfiruun yàlla bi muy tagg gaa yi yu baax yooye nit yàlla yooye mi ngi ne ñoom de ci guddi gi lu néew lañ daan nelaw lu néew lañ daan tëdd waaye nag dañ daan yeewu ci njël gi di def li nga xam ne ni mooy listixfaar maanaam di njéggalu yàlla soxna jaara ne ñaari aaya yi moo tax mënuma nelaw guddig gi yëpp te duma ci te ci jug mu ñuy fàttali eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne yàlla wàcce na suratul fat inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka sirata mustaqima ba aaya ya jeex bi keroog buñ ridwan yàlla wàcce aaya ne yow yonente bi la ubbi gu leer nañ waaye tam jéggal naa la bépp bàkkaar bu jiitu ak buy ñëw ndax yàlla dina mottali ay xéewalam ci sa kaw waaye loolu tey jii kuñ ko waxoon tey nu muy def day dem tëdd nelaw def lu ko neex ndax yàlla garantil na la àjjana jéggal na la bàkkaar yi njëkk ak ya mujj kay jëratul ngay sonn ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba aaya bi wàccee dafa gën a yokk doon jaamu yàlla di julli ba tànk yi di neewi sayyidatuna Aïcha am ci moom ñeewant ndeysaan ko ah yonent bi sallallahu alayhi xanaa du yàlla jéggal na la li jiitu ak lu weesu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ngoor ga lu mu ko tontu afala akuna abdan shakura xanaa ma nekkuma jaam buy sant kon loolu aay boobu daf ñuy fàttali dañuy fàttali eh, taxawaay bi soxna jaara am kon moom tamit ku dundoon sunna la ku royoon yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ci ay jëfam buñ demee ci minanul baaxil qadim eh, bu sëriñ Bachir radiallahu anhu dañ fay fekk muy nettali eh, lii ni maanaam maanaam farluk soxna jaara ci wàllu jaamu yàlla muy wax naan soxna jaara bu so ku nit jigéen ju baax la woon ku fegu la woon ku amoon diine la woon ku bari woon julli la woon ak woor ak sarxe euh, ku toroxlu la woon ci boromam subhanahu wa taala waaye tam ku jëfe woon ay waru garam ay warteefam la ci diggante suñ borom mi ko bind waaye digganteem <clears throat> ak borom këram bi nga xam ne ni moom la yàlla boole te mooy sëriñ Maam Mor Anta Sali waaye tam sëñ Basiir muy kon ne di wax naan waaye tam yëmul woo waaye daf yëmul woon foofu waaye dafa doon yar ak njabootam ci li nga xam ne ni moom mooy kersa sax leen yar ci nga xam ne mooy jaamu yàlla ci laab ci diine ci jikko yu rafet waaye tam da leen daan nettali euh, nettali gaayu baax ya jiitu woon te loolu dafa am solo lool ci xale xale lool daf ko mën a motiver trop da ko nettali ay euh, xissa yoo xam ne ni daf cee jëriñoo euh, ngir maanaam dund gi xam ne moo nekk ci kanamam mu mën cee jëriñu euh, ñi ngi wax ne euh, mi ngi bi nga xam ne sëñ Touba mi ngi nekkoon tu tànk ci euh, wetu waajuram bu jigéen soxna jaara mi ngi ko doon nettali ne naan ko min da bi saalihin alqiyaam bil layl maanaam nit ñu baax ñe de boo ci bëggee bokk da ngay jug guddi du julli te booba tout tànk la woon waaye nag euh, sëñ bi bi mu déggee loolu bi ko soxna si waxee loolu ci la tàmbale saa yu guddi jotee rek mu jug dugg ca dugg ci benn toog ci benn néeg wala ci benn place di julli donte ne booba sax mën naa am li muy kii xamu ci woon lu bari waaye ngir moom am na tamit yitte ju kawe ne bëgg naa bokk ci gaa yu baax ya waajuram bu jigéen wax na ko bala nga caa bokk moom taxaw julli moom ci guddi faw faaw nga kii ndax Euh, maanaam bu ñuy lim nit ñu baax ñi ñi nga xam ne ni ñu ràññeeku ci jaamu yàlla ci taqwa ci ragal yàlla moom maanaam jikkoy wala bokk aaday jug ci guddi di julli naafila moom il faut mu bokk ca kon loolu moo taxoon mu doon jug di euh, julli waaye tam bokk na ci jikko yi nga xam ne ni moom la ñu war a royee soxna jaara buso mooy ku sàmm secret la woon maanaam ku mënoon a denc secret te nekk lu ama am solo rawatina ci jigéen waaw maanaam mooy koo xam ne nii euh, ku ko dénk secret daal mën na la koo dencal te kenn du ko du ko maanaam du senn mu doon lu am solo nag waaye nag lu xaw a jafe ndax daanaka rawatina ñi nga xam ne dañoo am jot toog lu ne ñu dugg ca lu ne ñu wax ca daanaka waxtaan wi mën naa neex sax ba ñu tasaare ay secret yoo xam ne ni warul woon a génn waaye soxna jaara ku sori woon la foofu ndax da doon jëfee ba tey aaya bi nga xam ne moom la yàlla suñ borom subhanahu wa taala di wax naan fa saalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lil xaybi bima xafida allah maanaam jigéen ñu baax ñi de day jaamukatu yàlla lañ waaye ay dencikatu sekkare lañ ndax dañuy wax ne jigéen dafa am solo maanaam mooy maanaam moom la yàlla wóolu ci dénku ci moom sekkare yi nga xam ne nii maanaam moo gën a gën a cher ci yàlla doomu aadama moo gën a am solo ci lu yàlla bindoo laqad karam naa bani aadama doomu yaa doomu aadama boobu jigéen la ci yàlla wóolu ba denc ko ci ci ci moom dénk ko ko ci jamono yi nga xam ne moo solo ci ak dundam mooy avant muy juddu bi mu nekkee ci biiru yaayam ba bi muy màggee bay xàmmee kon nag moom jigéen googu secret boobu ko yàlla wóoloo ba dénk ko ko daf ko war a sàmm bu baax a baax waaye itam bokk na ci jikko yi nga xam ne ni mën nañ koo royee soxna jaara mooy ba tey exemplaire la woon ci doggu ak ci topp topp gi topp yàlla suñ borom subhaanahu wa taala ci ay ndigalam ci la bokk waaye topp borom këram bi nga xam ne ni borom këram bu ragal yàlla la ci la bokk euh, topp yàlla gi moom daanaka weesuwul li ñu waxoon ta mooy euh, jaamu yàlla góorgóorlu góorgóorlu ci waaye tam yar ci ak njabootam waaye tam ku ku toppoon borom këram la woon ci ci borom këram bu ragal yàlla fenlan te loolu bokk na ci li nga xam ne nii moom la ñuy nawee soxna su baax euh, bokk na ci jikko yi nga xam ne ni mën nañ ko royee soxna jaara bu soo te muy jikko bépp jigéen bu baax boo xam ne ni mat na roykaay mooy référence la woon ci li ñu tuddee al te mooy dogu ku amoon ak dogu la woon ku amoon yitte waaye tamoon waaye tam ku toppoon yàlla subhanahu wa taala topp yàlla ci borom këram te loolu bokk na ci li nga xam ne ni moom la ñuy digal jigéen ju bëgg am lu baax ci fi muy sëy waaw comme ni nga xamee ne yàlla suñ borom subhanahu wa taala dafa digal doomu aadama mu topp ay waajuram ci lu neex yàlla euh, noonu la digalee jigéen mu topp borom këram ci lu neex yàlla waaye nag bokkul ak li nga xam ne ni moom la ñuy dégg léegi ci soxna yi nga gis benn soxna muy def lu ko neex muy muy jokk karawam wala muy soppit daram wala muy sol lu war lu morta sol loo muy def jëf yoo xam ne ni dafa dàqoonteeg li ko yàlla digal ba waxee mu ne sama borom kër lii la bëgg loolu yàlla waxu ko ndax yàlla moo la moom moom sa borom kër <coughs> yéen ñaan ñëpp ay jaam ngeen ci moom kon nag moo droit topp sa borom kër ci loo xam ne ni neexul yàlla waaye nag lu neex yàlla nga koy toppee ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na la taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq euh, mbindeef kenn ko topp ci mooy yàlla te ay waajur ak ni mu fooree yàlla ba mu digee bi mu dëgalee ñu topp leen sax waaye dane nag wa in jahadaka ala an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun fala tutihuma bu fekkee ne dañ laa mooy loo yàlla wala ñu def loola lu yàlla bëggul kon bu leen ca topp kon nag loolu la ñuy wax rek pour gën a bàyyiloo xel ne topp borom kër dee su ko jiital ci topp yàlla waaye da koy topp ci la nga xam ne ni moo neex yàlla waaye itam bokk na ci jikko yu rafet yi nga xam ne nii moom la euh, saydatuna euh, soxna jaara bu soo siwee woon ku tabe la woon waaye ku lewet la woon tabe nag buñ ko waxee mooy ku tedd koo xam ne day joxe alalam ci yoonu yàlla te du ci du ci soxla dara innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura waaye tamit ku ku daan jéggale la woon daawul toppante waaye daf daan jéggale di jéllale ngir jëfe aaya bi yàlla suñ borom di wax naan idfa' billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim doomu aadama bu fekkee dafa ñaawal jëme ci yow na nga yow na nga koo fayee la nga xam ne ne moo gën a rafet ndax su boobaa sax ki nga xam ne dafa amoon digganteem ak yow genn noonoo sax day mujj wëlbati ko doon ab xarit kon loolu tamit bokk na ci jikko yi kawe yi nga xam ne ni xamee woon nañ ko soxna jaara radiallahu anha euh, am na ay abiyaat yu ama am solo yoo xam ne daanaka rek dafa tënk jikko yi sell yi nga xam ne ni moom la ñuy wax ci soxna jaara te mooy sëñ Masamba Marème ba tey moom mi ngi wax naan mutiatun rabbaha wa shaykha sayidaha ardathu afaaluha lillahi idmaana wa lam tuhin ahadan wa lam tushin abadan wa lam tubin abad amadan man aama man aabaha maana man xaawalu xaajatan fi milkiha wajadu nujhal xawaaiji laa yalqawna xirmaana man ayabuha bila qawlin wala amalin yuzra alayha fa kaana allahu dayyaana maanaam ci gàttal mi ngi doon tudd yenn ci jikkoy soxna jaara yu sell yooyu mu ne ku toppoon boroomam yàlla la woon ku topp borom këram la woon waaye tam euh, jëfam yëpp dafa nekkoon jëf yoo xam ne ni jëf ñu gërëm la woon mësta doyedal kenn mësta ñaawal kenn waaye tam mësta wuññi ay bi kenn képp ku amoon aaja aajo soxla dara dem ci moom rek mu fajal la sa aajo te mooy tedd tabe nga xam ne moom lañ wax léegi nga xam ne daanaka amoo woon benn ayib boo xam ne mën nga ko ayibal radiallahu anha waaye itam mu nekkoon référence ci li nga xam ne nii mooy muñ te muñ dafa nekk uh, jikko boo xam ne nii maanaam mënta ñàkk ci doomu aadama rawatina ci soxna ndax uh, jamono ji bëri na ay mbir léeg-léeg nga gis lu la neex léeg-léeg nga gis lu neexul néegu sëy dañ ci gis lu la neex dañ ci gis lu la neexul te liñ naan foo muñul lu metti lu neex du la fa kon muñ lu mënta ñàkk la waaye bokk na ci jikko yi gën a gën a am solo ci jigéen yi ñu war a royee ci soxna jaaram mooy jikko yi kersa kersa dañuy wax ne alxayaau euh, xasanun lir rijal lakinnahu lin nisaai ahsan kersa de lu rafet la <clears throat> luy taaral góor waaye nag ci jigéen la gën a rafetee euh, jigéen taaram ci kersa la nekk waaye bu ñu te roccee kersa rek ak nu mu mën a taaru ci kaw ni bu dee kersa bokku ci rek euh, dañuy jàpp ne ba léegi jigéen nga taaruwul kon kersa bokk na ci kersa damm sab gis di wax ndànk di dox ndànk taraxlu maanaam wàcce sa bopp euh, du ñu la dégg ci ay détails wala yoo xam ne nii euh, ay caaxaan la yooyu yëpp ci euh, kersa la bokk te kersa dafa am solo comme ni ñu ñëwee ci xadis alxayaau shubatun min al iman dafa mel ne moom kersa ab xaaj la ci xaaj yi ngëm yàlla beneen xadit mi ngi wax ne ida lam tastaxi fasna ma chita bu fekkee daal kersa moom amoo ko kon defal lu la soob kon ci gàttal kersa mooy nekku ne lu la neex ngay def waaye looy def lu nekk dafa am loo cay bàyyi xel kon soxna jaara tamit ku siiwoon la ci wala bokku ñu xamoon la ci li nga xam ne ni moom mooy kersa waaye tam euh, li nga xam ne ni mooy ragal yàlla te comme li yàlla di wax ci suratu fatir innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ragal yàlla gi moom c'est normal parce que ñii ragal yàlla dëgg-dëgg ni ko yàlla waxee mooy borom xam-xam bi moom borom xam-xam la woon dafa jàngoon ba am xam-xam kon nag Euh, min at-tabi'i jiddan kon seen naturel seen normal mu nekk koo xam ne ni ku ku ragal yàlla la kon xam naa euh, daanaka dañuy tënk foofu rek ci jikko yi nga xam ne ni moom lañu war a royee si soxna jaara euh, kon ci noonu noonu la ak dundam <coughs> noonu la dundee dund gu ci zaahir fanweeri at ak ñett mi ngi gane àdduna 1833 génn àdduna 1866 waaye nag dundu gu barke nga xam ne ni maanaam réalisé na ay mbir liggéey na liggéey boo xam ne euh, nit mën naa dund téeméer at wala lu ko ëpp te liggéeyu ko ndax dundu gaa barke mi ngi euh, gane mi ngi génn àdduna ci année boobu ñu wax ñu denc ko ci dëkk bu ñu wax Poroxaan Poroxaan nag yaakaar naa kenn du ko présenté kenn bokk na ci barke yi nga xam ne dundam barkeloon na ko ak may yi nga xam ne ma yàlla may na ko mooy jigéen joo xam ne ni moo fi amul màggal saa yu dikkee ñu di ko fàttaliku euh, di ko ñaanal ak di jàngalante maanaam jaay jaar-jaaram ngir di ci mën a roy te roy ci doonu lu dul ak yokkute doonul lu dul ak defaru euh, ba ñu faatoo incha allah yàlla boole ñu ci ñamuy gërëm ndax sayyidatuna Mariama Bousso soxna jaaratullahi dafa mel ne dafa doon woon turandoom soxna Mariam moo tax daanaka buñ xoolee ci alxuraan li yàlla di wax sayyidatuna Mariam euh, bintu Imran lu ci bëri rek mën nañ koo wax ci soxna jaara wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wala wa kitaabihi wa kaanat min alqaanitin moom Mariam daal dafa dëggal baati suñ borom subhanahu wa taala waaye dafa bokkoon ci jaamikati yàlla yi am na feneen fu muy wax ba tey ci sayyidatuna Maryam radiyallahu anha Maryam yaayu Isa mu ne wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin wallati ahsanat farjaha fa nafaxna fiha min ruuxina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin yàlla ñun yàlla dañoo def Maryam mook doomam ñu nekk ay kéemtaan ci àdduna bi waaye dafa mel ne rek ba tey mën nañ koo wax ci soxna jaaram nii daal dañoo yàlla daf koo def moom ak doomam ñu nekk ay kéemtaan ci àdduna bi yëpp kon xam naan foofu la ñuy Euh, di leen jox dig daje ci euh, xalqa bii di ñëw <coughs> ci émission bii di ñëw euh, ci seen télévision MK TV sama muqaddimatul xidma di leen yokk sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu بزار في الحسنات سيدات لمحسنات مريم فاختم خينات عند الذي لم يدرك